Euh, préparé ci naka lañuy bindé projet li tax nak ñu njëkkee déjà module rédaction de projet bi moy dañu dox seetlu dem ci danaka ay structure yu bari yo xamni fi lañu nek structure yoy am ay niche de financement yo xam dañ ko jaglé jeunesse bi mais jeunesse bi non seulement amuñu information mais aussi buñu amé information financement yooyu du ci mëna jot parce que amuñu projet balaa ngay nekk bénéficiaire wu financement yi il faut que nga mën a am projet balaa nga koy am sax il faut nga mën ko bindal sa bopp donc ñu ne nañu tàmbali jéem a dajale ndaw ñu fexee nu ñu leen capacité ci nan la ñuy bindee projet ndaw ñooñu xëy na tey bu ñu génnee ci formation bi mën nañu am seen projet bopp dinañ ko mën a bindal seen bopp bu ñu gisee ku soxla projet mën nañ ko ko bindal mais mën na doon également. filière bo xamné ñom ñoom mën nañ ko développer sax mu doon un début d'entreprise ba tay képp ku soxla projet ñom ñu mën la ko bindal donc li mo nekkoon xalaat bi tay ñu ne nañu fexé en tout cas préparer ndaw ñi sur la rédaction de projet. bi ñu demee Sénégal service muy administration de proximité bi fi nekk bon BAOS daf ñu xamal ni ñom am nañ fi ay financement mais duñu ñu gis kuñ ko jox. bi ñu également ci procédure d'acquisition financement yi du ñu gis ne dafa xawa administratif xawa compliqué donc ndaw bi bu amul outil rek du meuna nek bénéficiaire donc nous sas ñu en tout cas ci mission bi ñu fexe en tout cas nu ñu tagaté ndaw ñi pour ñu am ay capacité pour mënal sen bop pour ñu am ay capacité pour créer de la valeur ajoutée parce que loolu aujourd'hui moins en

Euh, formation bi dañ ko politique cest important de rappeler que commission bi politique ak commission bi euh, en fait euh, toute la jeunesse de Tiawan. donc bénéficiaires la formation bi c'est des jeunes volontaires ñoo engagé wu pour nous pour nous attester pour nous capaciter pour bu ñu ci formation diplômes bu ñu parler de nos projet nous xamni fi lañ leen initier pour ñu remplir ko avons organisé ci ño xamni nañ organiser pour déjà ñu nekk sur un début de création d'entreprise donc li moy initiative bi tay mais c'est un début sur un programme de renforcement de capacité au profit de la jeunesse parce que dañ japp ni ndaw ñu war nañu déjà commencer di gëm seen bob, développer ces entreprises créer de la richesse créer de l'emploi loolu mooy valeur ajoutée loolu mooy naataange loolu moo mën a doxal ab dëkk et je pense que c'est ce lañ leen fas impulser impulsé waral initiative bu tey bi ñun dañuy encourager projet collectif parce que dans le cadre d'une entreprise da ngay soxla ay expertise tey man mën am xam-xam ci je mbay mais pas ma comptable mën am xam-xam ci wàllu mécanique te ne suis am xam-xam ci wàllu informatique te loolu yëpp boo bëggee gérer entreprise da ngay soxla expertise yooyu et déjà bu fekkee ressources yooyu am na fi ñun dañuy encourager ñu mettre leen en commun loolu mooy gën a yomb et ñu préparer leen déjà pour la pérennité